déggoo li ma la yàlla mooy joxe nguur te jomaay la ko jox yàlla nag bu lay jox nguur dafa am fu mu koy jaarale da nga wax bi terminé. d'accord def nañu téeméeri fan ba président Diomaye fay def ci benn janoo bu mu seex ak taskatu xibaar yi. Euh, ñu bari jàngat ko gis naa bugaan itam ci téeméeri fan yooyu wax na ci gis naa ku mel ni presque Thierno bokkum mu def ko gis naa ñeneen ñu def ko gis naa coalition Diomaye président itam ñu ku nekk ak ni nga jàngate téeméeri fan yi nga xam ni def nañ ko ci pouvoir bi ndax yow bi ñu nekkee au pouvoir ak léegi euh, lan nga ci tiré lan nga ci gis ci téeméeri fan yooyu. man nag vraiment du leen jugé ci téeméeri fan. Mm-hmm. parce que nag aussi ñoo xam ne ñi ngi soog a ñëw ñu jox leen nguur gi te ay la yéwén ñoom la Sénégal yi voteel téeméeri fan nga ni da nga leen di jugé man loolu gisuma loolu mm-hmm. man li ma waxoon ci journal tubaab bi laa gëm man leen bàyyi ba ci kanam ñu xool honnêtement parce que téeméeri fan lan nga ci mën a def mënoo ci def dara donc je pense aussi nit ñi comme ñoo leen voteel nañ am nag vraiment dalu bàyyi leen tuuti xanaa nit ki sax au moins di ko may 6 mois nga may ko un xam nga mais nit ki mënul ñëw parce que un état ak ni mu toll ak machine état ni mu toll nga ñëw war a def ay réformes en 100 jours nit ñi di génn non loolu c'est trop tôt man de du ma ci du ma ci bilan du ma ci juger kenn bu ma toogee nag fii ak at nga xam ni. lépp lu ñu mën ak lu ñu mënul dina feeñ loolu peut-être bu fekkee ni am naa jot parce que yaakaar ma sax dina fekk waaw mais Cheikh. boo ma fan yi boo ci waxul dara xanaa di nga wax ci li nga xam ni diggoon nañ ko nit ñi nekkat bu ñu ñëwee poste yi appel à candidature lañ koy def. nomination yi itam gis nga. ni mu demee. ñu ngi ciy wax kii la ñu fal fal fal doomam fal nangam nangam. loolu itam xaaruñu ko wax dëgg yàlla. loolu même boo dul jàngat téeméeri fan yi amoo loolu leen di reproché mais loolu war nga ci mën am xalaat xanaa. ah en tout cas day Umar ibnul Xattaab day bi muy waaj a génn àdduna ñenn ñi ñëw na ko joxal yëfi sa doom Abdullah bin Omar daf ne duma ko mës a def ci àdduna loolu day am na moom mhm. doomu Omar bi muy njëkk dugg ci nguur usmaan moo ko ci dugal baayam dugalu ko ci woon kon népotisme du lislaam yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa nee na waat naa ni Fatima mi ma jur bu sàccoon ma dagg loxoom loolu lan nga ci jàngat li nga ci jàngat mooy népotisme wala favoritisme du l'islam euh, je pense que booy nommé yonte yàlla Muhammad di sa référence da ngay teg ñaar nga nommé ci critères yooyu compétence maanaam xereñteef ak njub ci sama gis-gis mais nag pap dafa am loo xam ne man mën naa ko pardone ñii xam nga lu tax. Mhm. ay inspecteurs des impôts lañ yoo xam ne nii inspecteur des impôts kese lañu. loo xam ne xëy na même avant ngay nekk président wala premier ministre mosoo am secrétaire mosoo am bureau boo moom yow rek mosoo nekk chef de section mosoo nekk chef de service mosoo nekk directeur. mosoo nekk ministre mosoo nekk premier ministre mën nga wax lu bëree bari bari ci réew loo xam ne peut-être mën naa jàpp ni sax su ma rafetee njot xamoo ci dara parce que pouvoir aussi xam nga ce qu'on appelle la réalité du pouvoir xam nga mooy lan mooy li ngay jànkoonteel boo ñëwee ba toog te muy loo xam ni xëy na sax ba ngay wax tu de bonne foi da ngay wax vraiment yéene woon nga ko yaakaar ni lii mën naa nekk mais da ngay ñëw ba ci nguur gi xam ni lii mënta nekk est-ce que tu comprends parce que taxaw ni da ngay def euh, appel à candidature loolu c'est bien c'est très bien man je pense que sax c'est le meilleur mode de gestion fii ana la preuve Gbagbo génn nañ dix ans Côte d'Ivoire finance publique yi taxaw parce que bi mu ñëwee dafa jël directeur des impôts des domaines du trésor fépp fu xaalis nekk mu def appel d'offres jël cabinet international jël ivoirien yi gën a mën bu signé ñoom contrat d'objectif ñu yor ko gars yi téye ko réew ma di guerre fukki ak koom-koom bi taxaw loolu mooy compétence loolu moom lu baax la sincèrement idée bi baax na lool mais dafa am leneen lu am Napoléon nee na on ne gouverne qu'avec ses propres hommes loolu aussi te ci texte bi aussi président de la république sañ naa nommé ku ko neex mais daal en tout cas Pape la critique est facile l'art est difficile àdduna nekk ci biti di wax moo gën a yomb ñu jox la rek ngay ni la doxalal bu la joxee la ngi nag da ngay jonkonteeg ce qu'on appelle la réalité du pouvoir maanaam li nga xam ne nag mooy dëgg-dëgg nag yëf yi boo jànkonteeg li nga xam ne mooy dëgg-dëgg yëf yi nag da ngay xam li mën a nekk ak li mënta nekk ñoom nag justement am na yoo xam ne au départ il faut que ñu pardonner leen ko aussi parce que erreur de départ dafay am pap loo jàngul mënoo ko tari koo xam ni sa dund yëpp mosoo nekk directeur général mosoo assister réunion interministérielle mosoo assister conseil des ministre bi nga jëlee nguur gi il a fallu nga def séminaire gouvernemental pour xam ni ñuy doxale nguur c'est normal au début nit ñi am tolérance su bàyyi leen ñu jàng parce que loo jàngul aussi doo doon loolu na ni ñu koy waxee noo doonul ndongoom doo doon sëriñam. d'accord